الله على نبي الكريم سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه وخدمه ذوي الردوان والتمكين بقي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بقي جلتي بقي تاريبي نجلين دي نوية دلين جار يجيتل جنوية بأكجار بكلفة يون بي شيخ محمد المنتقى ziyaare bu baax sëriñ ahmadul muxtaar kilifa daarul quddus di ziyaare sëriñ abdurahman mbàkke gaynde faatma nekk ci boppu njabootug ci ahmadu mbàkke gaynde faatma di ziyaare bu baax sëriñ mustafa muhammad mi nekk ci boppu njabootuk sëriñ mbàkke soxna lo ñaanal ñëpp njëggaluk suñu borom ak yërmaaneem ñaani sun borom gën leena taxaw di leen mag ñi bàyyee ñu di ko sàmm yàlla bu ci dara sëkk barakat cheikhul khadim di jëkkante ak waxtu rek di fàttalante ak bokki talibé yi ci saa yu ko jamono laaje nuy càmbaraat ak jéem a leeral lenn ci dundu gaa yu baax yi nga xamante ni ñoo dëkke woon suuf si te fa suñ borom joxoñoon ñu tegoon fa seen tànk ñu bokk ci ñooñu nag sëriñ Mbàkke Soxna Lo doon kenn ci njabootuk Cheikhul Xadim di kenn ci ñooñ lislaam di doomi réew mi itam yàlla dogalit mu dund dund gu barkel mu don référence itam te jamono laaj ay model yu ñu joxoñ suñu ndaw mom nak fa tabarakallah bi mu fi jógee yagut waye xeyna am na ño xamanteni ni bi mu fi nekké dañ koy dégg wuñ ak mom ak ci ñoo xamante ni it xëy na dañ ko doon dégg waaye seen bët mu sa tege ci moom am ñoo xamante nii itam xëy na ci ndaw ñi fekkuñu ko fi te suñ boroom daxal ci moom tedd ngay jikko yoo xamante ni nii lislaam jëpp ko soxla rawatina yoon wi moom nag daf doon wax booy wut référence xool ko ci biir suuf waaye ñi ci kaw amaana boo leen toppee mën ngaa juum loolu dafay tax ñu gën baral sunuy jéego ci jéem a xam sun mag yi démb ndax jamono booy xool dafay mel ni la baaxoon démb tey la gën a baax waaye dafa néew la bonoon démb tey jii la gën a bon waaye dafa gën a bari loolu nag buñ farluwut ndaw yi ñu yor mën nañoo sànku te duñ ko xam sëñ Mbàkke nag mu ngi feeñ ci année 1934 mu ngi feeñee Naydé Mbàkke bokk ci dëkk yi nga xamante ne ni Cheikh Mouhamadul Moustapha sancoon na ko ci jamonoy Seexul Xaddim muy quatorze kilomètres rek ak Touba foofu la feeñe ci waajur wu jigéen wu ñuy wax soxna Loo Jóob moo tax ñu naa ko sëñ Mbàkke soxna Loo soxna Loo mii nag soxna Aminta Loo muy waajuru Cheikh Mouhamadul Moustapha lañ ko tudde warmal turoo moo tax ñu naan soxna Loo waaye soxna Aminata Loo la tudd ak wu góor wu ñuy wax sëriñ Cheikh Ahmadou Mbacke Gaynde Fatma bi mu ganee àdduna itam ba mata dal jàng ñu jaarale ko fi ñuy jaarale doomi soxna te mooy saytu am njàngam saytu itam ab yaram jàng alquran jangga ulum saraya waajuram yóbbu ko gànnaar moy ardu salihina di suuf su sun borom barkel su bari xam-xam ak nit yalla mu nek fa abdir gannaaw bi mu ñibb si loolu sax moo tax ñoon sëñ bakk gànnaar amna ay turandom yu ñuy woyé loolu ñu jàng wàllu tubaab demoon na itam Algérie jàngi kon génn na ci bitim réew jàngi jàng na itam ci biir réew mi bi mu ñibbisee itam waajur yi boole ko ak njaboot gi ci ay taxawaay yo xamanteni ni mo len ci wara taxaw yooyu yep itam waccay la rek ci mo xam li jëm si ci loxom lu mu doon ak yeen taxaway la ci wara a taxawe gis ni laaj na kon ko sun borom denk njabot taxaway yi ci wara taxaw ngir préparer leen ba ëllëg ki si biir seen ndono duñ ko wàcc duñ yam rek ci doon seeni baay waaye dañ koy doon moom nag bari na lu mu niroole ak waajur wi di sëriñ Cheikh Ahmadou Mbacke ci bëgg xam-xam ci yëg doomu aadama yi ak bëgg leen ak yéene leen jàmm ak di leen dimbali ak ay taxawaay yu am solo mu doon nit koo xamante ni nii jafe na trop nga natt ko ci ñi mu jamonoonteel ndax doxin wu yéeme léeg-léeg damay wax ni jàkkeeru muus la man nga am junni muus te doo ci am benn ndax raar gum raar ci jamono lu doon dunde ci aw doxinam ginnaaw boo xamante ni nii jaarale nañ ko fi ñu ko war a jaarale ba mu taxaw taxawaay bu am solo ginnaaw waajuram nag la door a fés jël ay responsabilité ci liñ liñ ko fi bayil muy ndono war ko sam war a représenté cheikhul Xadim itam muy ginnaaw day jaxasoog waa àdduna war nañoo jàng ci jëmmam kan mooy Sëñ tuwa war nañoo jàngee ci moom fan lan war a teg sëñ bi te loolu sëriñ bi daf daan wax ni képp koo xamante ni dees na la tudd di ma tudd yaa xam loo mën a doon ci man te su nit jógoon di ma seet si duma ko jaral ak si ndax saw melokaan doo jéggi siraat mukk te yowuñ ko maag yow loolu taxoon na mu doon nit ku diiñ ku garde personnalité nit ku néew ay wax nit ku rëy ay jëf koo xamante ni nii ko gisee bëgg ko soo ko fekkee ci këram da nga ko naw su ngeen jaxasoo nga bàyyi ñëpp téye ko te loolu la Sëriñ Tuubaa bëgg ak nitam mel ni loolu mooy ak ak murit loolu mooy ab jullit mu doon nit ku tabe te tab googu sax dafay mel ni nit ñi ko ñi ko xam tab googu lañ ci gën a ràññee donte noonu mu mel ci tab noonu la meloon ci yeneen jikko yi ci des yépp mooy nit ku woyof la nit ku mën a muñ la nit ku yaatu la nit ku tabe la nit ku lewet la nit ku gore la ku dégg digal nga xam ne ni mu daan dimbalee doomu adama néew na ci jamono fi mu toll nii koo mën a teg baaraam ni ñoo bokk aw doxin ni mu daan terale nit néew na itam kooku ci mën a tëkkaleel ci xeetu teraanga ndax euh, yàlla dafa dogal nit ñi amoon ci moom ak cofeel waaye relation yooyu yëpp nag da koo dox ci diir bi mi am jot moo tax bi mu toogee nga xam ne jamono ko tëj ñëpp nangul ko tëju gi mu tëju woon tëjuwut ngir ni daa yor lu nit ñi soxla mu bëgg leen caa sonal tëjuwut ngir ni dafa gën nit ñi dafa dem ba jamono tëj ko mooy lu ndaje bare bari bari su duggee ci biir ndaje ma dafay ñe ndaje ma te loolu du teggin du ay orma di gëm ak ñi mu bokkal Sëñ Tuubaa taxoon na mu wàññi ab doxam ci yu bari wala guddi la koy dem loolu dafay wuute ak ni gone yi gisee léegi nga xam ne dañ jàpp ni lu ñu la ëppale dañ la ko war a jaay li mu yoroon itam doon na ko bokk ak comité bi rawatina bokk yi ci bokkin woo xamante nii ni rafet la woo xamante ni mat naa jàng mooy képp ku mu mos a séqal teraanga teraanga ji yaa ko nettali waaye moom ba mu la ko joxee la ca noppi te joxin wu rafet la la koy jox woo xamante ni ni doo doo ca doo ca gaañu ndax mën ngaa jox nit ba pare blessé ko ci biir jox bi moom nag jox bi mu lay jox du la ca gaañ ndax joxin lay doon woo xamante ni ni jamono war na ko découvrir ba di ko jëflante rawatina ci ci biir bokk yi ndax uh, ci ay exemple benn sëriñ daara lañu wax boo xamante ni nii nee dafa am am tudd dem ci sëñ Mbàkke doon ko ko wax ndax bëgg mu dugal ci loxoom mu dalal ko noonu mu daan def rek nga xam ni boo ko seetee eh, dafa lay dalal di la teral ba boo dee ku gàtt xel sax soxla sa nga fa amoon danga koy duble ndax xeetu teraanga nga yim lay defal da nga naan soxla sii ma am moom rus naa koo wax da koy yokk doomi soxna boobu daa ñëw mu dalal ko téye ko fa bañ ni suba la ngénte la ci guddi bañ reeree ba pare mu woo ko ni ko kaay dellu ba pare jox ko kaamil bu alxuraan nee na joxuma dara ci xaalis kaamil bu alxuraan rek la ma jox kooku itam amul jaaxle ndax ni mu ko déggee ak ni mu xamee sëriñ ci man soxla wax soxla mu téye ko ba ñu soxla sa suba la ca guddi mu yeewi ko jox ko kaamil alxuraan kese nee na sama xel xaw naa jaxasoo daanaka xamatuma ci li may def dara ndax xewoon moom ni mu toll ci moom boole kook mu boole kook chauffeur boo xam ne ni ko booy dem yóbbaale ko mais bu ma bàyyi woon ak saa bopp sax xëy na guddi gi ma jéem a tëñ tëñu faneen balaa bët set waaye da ko boole ku ko yóbbaale ba buntu këram waaye nee na bi ma xëyee yeewu suba teel comme doomi soxna la jàng wàqafi alxuraanam naa ko teel a jàng bu ko defee ma dem dara lijjanti fa am tudd ñëw ñu tudd balaa naaj ma dugg ci marché bi lijjanti lu mu àndal ndekete kaamilu alxuraan bi mu ko jox lay def fooy wu mu lemmi roof ci dix mille wu mu lemmi duuf ci dix ba kaamil bi jeex nga xam ni doomi soxna ñooñu bi ma ubbee kaamil bi yem ci dix mille ma jàng defe dañ ko caa fàtte rek jàng daj waneen mu continuer di ko noonu nee na far wax ba sax mujj ma ko àggale loolu joxin la woo efficace woo xamante ni nii nëbbu li muy joxe loolu rek moo tax mu def ko loolu itam dañuy jàpp ni joxoñ bi sun borom joxoñ ñi yor dara taxaw gi ñu war a taxawu seeni bokk mooy yàlla waxut nga dimbali leen sun borom daf laa wax ni la jox leen seen wàll ci li ma la jox wa atisal qurba àqa nit nag su fekkee li nga ko jox àqama te moo ko moom war nga ko jox joxin wu rafet wu efficace koo xamante ni nii doo ko ca doo ko ca lor mu doon nit koo xamante ni itam xamé won na dimbali nit ak fajj soxla yoy itam ñu bari ci borom alal dañ xamé wut dimbali nit ak fajj soxla fajj soxla moy dama am soxla ñaar fukki junni wala borub ñaar fukki junni ñu wax la ko nga yëkëti ñaar fukki junni jox ma fajj nga sama soxla waye dimbali woma ma ndax buma fayé fayee bor ba it buma genn di lebat dimbali nit nak dang koy jox lo xamé da fay fay bor ba lu mëna a ba du wat ca moom daf daan dimbale boo gisee ni mu daan joxe nga xam ni nekk fi woon ngir faj soxla waaye daf doon dimbali nit ñi bëgg ñu jóge ci étape bi ñu nekk jàll ci beneen étape. doon nit nit koo xamante ni ni ñëpp la xajoo barabam ñëpp fa daan farakant ñi am alal la nga fa ñi néew doole nga fa murit yaa nga fa tiijaan yaa nga fa ñëpp fa daan daje te kenn ku nekk da nga gis sa bopp ci biir jataay bi. soo bëggee mu yëkkati nit rek dooya delal nit ci kanamam dana ko yëkkati ba teg ko ci sa kaw bopp nit la itam koo xame koo xamante ni nii ni mu def boppam noonu la defoon ñëpp daana sukk ci ab añ sukkandook ay taalibe yu bari ay wala ak i soppe kudd gi mu yor di ci tibb di sex léeg-léeg mu tibb ci sexal nit bu paree tibb sex loolu bariwut kilifa ko ko nangu loolu itam bokk na ci taxawaay yi nga xamante ni nit ñi war te loolu ab nawlonte la bari na kilifa yoo xamante ni seen biteel bañ teg ci seen wet di ca naan képp nanguwuñ ko walal wala kaas ba ñuy naan képp buñ ca naanee jaral na leen gedd ko moom kudd ki nga xamante ni moom la yor di ko tibbe di sex dañ ci tibb sexal nit ba pare tibb ci sex loolu dimension la boo xamante ni nii bu bu kawe kawe la Don nit yi tam koo xamante ni ku fonk kàddoom la li gën a jafe ci jamono mooy da nga sëgg ci nit wax ko soxla mu ni la waaw te fekk waaw ji déedéet lay tekki lim la wax naru ko nga xam ni da ngay baagante ba tële wala nga baagante ba mujj nga am kersa ndax xam ni kii li nga koy wax naru ko nga mujj toog moom nag lépp lu la wax dana dana ko def dafa am benn daamar jum doon defarlu wax kenn ci njabootam mu yóbbu ko ca mécanicien ba kooko waxaale moom sax moo moo woolu mécanicien bi waxaaleek moom ba d'accord ak moom ci téeméeri junni ñu jël oto ba yóbbu ñu war koo tolleewaat am ci njabootam ku mu yabal ni ko demal fay ko kooku dem waxaat ak euh, mécanicien ba mu wàññi ca cent cinquante mille ndax waxaalewu sëriñ ak waxaale wudul ab sëriñ moom yomb naa xam bi kee demee fay ko indil ko weccet bi mu ni ko lii nag mu ni ko ah kee daa xam ni sëriñ nga rek moo tax mu facturé la lim la facturé waaye lim la facturé warulu ko woon a facturé moo tax bi ma waxee moom dolli na ci cent cinquante mille sëñ Mbàkke daf ni ko delloo ko sama kàddu ga moom lay sàmm maa ko waxoon ni ko danaa la jox cinq cent mille loolu itam jafe na trop trop ci jamono am na itam jeneen jëmm joo xamante ne nii daf ko daa am soxla jaare ko ci benn rakkam wax ko ni ko dama bëgg ku dimb dimbali yóbbu ma ci sëñ Laat kooku itam miinut soxna soosu xamu ko mu ni ko nag sëñ Mbàkke sama nawle jekk-jekk yóbbu fa koo xamante ne nii xawma ko itam moom du ma man ndaw sa laajteel boppam bañ tegtal ko Taïf mu dem Taïf yóbbu fa turu ko kii mu ko bëggoon mu yóbbu ko tem gàntu moom la fa yóbbu turam ni moo ko fi yebal wax sëñ bi soxlaam jafe-jafe yu mu am ba sëñ bi wax ko ni ko danaa la jox cinq millions fekk jamono yooyu sëñ bi di waaj war a dem Italie ni ko léegi damay génn waaye su ma ñëwee danaa la jox cinq million daal koy may cinq cent mille ca sax demee ba ñëw woo fereeram boobu wàññi cinq millions jox ko pour mu jox ko ko kooku xamut sax ki mu wax ku mu doon waaye ginnaaw bi ni mu ko tegtale moom xam na ni kooku mooy ki ñëwoon ci moom mu ni ko duma ko jox kii dama ko war a yóbbu ci yoon waaye ndax sàcc la yebaluma ko fi xawuma ko sëñ wàkki ni ko sama kàddu lay sàmm maa ko waxoon ni ko danaa la jox cinq millions yow maay sa kilifa war naa la yónni demal yóbbu yóbbu loolu itam gis ni jëfin la woo xamante ne mat naa xool bu baax a baax mu doon jëmm joo xamante ni tu damm ay bëti woomam ci benn barab budul ni da ko faa war a sukk muy njaboot ki mu bokkal Sëñ Tuubaa te mu féete ko mag waaye fenn foo xam ne dana fa damm bëti woomam ngir bëtam dafa tege ci loo xam ne da koo soxla amut ci kaw suuf kook ko mën a def loo loolu itam bokk na ci yi nga xamante ni ni nit ñi war nañ ko retenir ci moom muy ab ministre dafa daan ñëw mu teral ko buy dem mu may ko xaalis kon ñaanu ko xaalis président ah, ah, ñëw na fa ba tàyyi mu jël xaalis jox nit xajo won na opposition bepp itam kenn ko xamanteni da nga nan seigne mbacke diw la andal waye diw da ko won gannaaw yombu ta xam parce que limu jappone moy dafa jappone ni rew mi mom moko wara tabax kon parti opposition yep mom lañuy jappalé ci ku ñew joxoon ko sa programme la nga ci depo ak mom mu nangul la ko jël la taf ci boppam loolu itam bokku na ci jikko yi nga xamanteni ni mat mat na bàyyi xel yi ci dess itam moy fonk gi mu fonk jëmmam doomu aadama du toroxal boppam nit jëmmam la am mom nak daf daan wax ni da ngeen fonk seen bopp ndax ku rot ñu joggi ci kaw nit bu wacce boppam ñu ni nit ci boy dund lo rot le man nañ ko for jox waaye yow ci sa bopp boo rootee ñu joggi la jàll moo taxoon mu doon garde personnalité am bu baax a baax doo ko dégg ci wax ju doy doo ko gis ak col gu doy di doo ko fekk itam ci place boo xam ne da nga naan kii lu mu doo ko gisee ñoo xamante ne naa ko ñii lu ko boole ak moom loolu itam bokk na ci yi nga xamante ne ni ndaw ñi war nañ koo bàyyi xel bu bu baax a baax gis ni itam ni bokk na ci itam muy fonk dëkkuwaayam nit amut lu dul jëmmam ak fi ko ay nawleem di fekk loolu itam lu mu ca man war na ko caa def du ak bëgg àdduna waaye dafa bokk ci xeeti jaamu yàlla yi ak li encouragé ñooñ lislaam mooy ñooñ lislaam barab yi ñu nekk ñu defar ko bu ëllëgee ki si biir ku tardé xam ne yaa tardé sa bopp waaye l'islam tardé lul kenn loolu dund na ci dundin wu efficace boo xam ne boo demee ba Taïf gis lamp fa danga xam ni fonk na barab bi fonk na ki nekkoon ci barab bi waaye fonk na diineem te boo ko fekkee ci biir ba waxtaan ak moom danga nga naan kii lii mu def ci gannaaw loxoom bii la ko teg ndax pale boo xamante ne ni daanaka la ca dem milliard ba tegal na nga am ko te fanaan ca benn yoon te dund ak moom lu yàgg loolu yombut pale bi benn yoon la ca musa fanaan te mooy bi fa sëñ Saliou demee seeti ko visité ko daal ni ko fii de mënees na fee fanaan te nee na kàddu ko sëñ Saaliwu googee doon màggal moo tax mu fanaan te daanaka minuit la fa dugg ba quatre heures du matin jot fekk na mu génn ko loolu mooy du alal ju sax ci xolom ci gannaaw loxoom la ne daf ko doon def ngir sagal lislaam ak sagal Cheikh Mouhamadul Moustapha mi nga xam ne moo sancoon barab ba ak valoriser ko ba ñee ne ca barab ba man faa toog te loolu itam dañuy gis ni ñi yàlla dénk ñëpp buñ ko defoon sun barab yi du gent barab yi ñu mag ci bàyyiloon yépp boo ca dem su fa téeméeri buntu kër on, la fa des léegi bëreetul lu tax mooy ku jekkatu ku jekk rek wéy nga ndakaaru wala yaa ngi tuuba bu ko defee loolu bu leen ci talibé yi royé mooy kenn du des fenn barab yépp li tax bi gent lool rek la mooy ku yekk ñenn ñaa ngi Ndakaaru ñu ci des a ngi Touba ñu ci des a ngi yóbbu seen njaboot Europe toog fa ak ñoom boo ko defee àll ba deetu mën a dund te itam ñi nga xamante ni ni ñoo fa nekk te néew doole duñ fa des di tumurank ñoom it dañuy yannu seeni i dem ci taax loolu moo tax Taïf gis nañ ni ko valoriser nga xamante ni bu ko ñëpp topp ndowoon ci dëkk yiñ ñu leen bàyyeel dëkk ya dana dana xumb dana dund te it mag ñoo dana ci àgg te dana doon barab yoo xamante ne nii ñoom lañ mën a mën a yare mu doon nit koo xamante ni nii ouverture am yaatu na mooy jëflante ni noonu lañ jëflanteeg mboolem tariixa yi nga xamante ne nii ñoo nekkoon ci réew mi nit ñi gëmutoon yàlla itam te doon ko farakante it joxoon na leen ab cër ngir ni doomu adama lañ suñ borom lañ bind ci ciobarem ñu am ay way ñu war leen ko jox ndax señ bi dafa daan wax ni ki nga bokkolu diine bu ko xeb bu ko yeb bu ko bañ mu doon ab tab boo xamante ni nit képp koo xamante ni ni mos na laa tane ci dara dimbali na la ci jëpp itam doon boole nit ñi ñu doon benn doonut woon koo xamanteni ni ab yëngutoom mi ngi jëm ci xajale wala séparé daf daan wax ni mag mu ngeen fi gis mu lëggéeyal sëñ Tuubaa andi leen ma ko ma taral ko daa ni biir ga nag moom sëñ ko gàddu lool sama yoon nekku waaye teraa nga adduna ji moom lu ma ci man danaa ko def loola ak yaatal la lëggéeyal sëñ Tuubaa la ndax jublu ci woon wane boppam bu doon wane boppam rek ci njabootam kese la koy wane waaye gis nañ ni daal ay relation yoo xamante ni ni yu mu amoon la ak tarixa yi fi ne ci biir réew mi gisoon nañ itam ay relation yoo xamante ni amoon na ko ak ay chef diplomate yoo xamante ni ñenn ñi ñu ci biir réew mi ñu ci des ñu ngi ci biti noon yi mu doon dundee ci biir réew mi it bu mosaan genn bitim réew itam noonu yi la daan dundee mooy saa yu génnee mboolem lu ko taalibe yi jox ñi nga xamante ne ni ñoo koy taseeg moom ci àll bi ñoom la koy séddalewaat du indi dara te kenn ëpp ko woon wërsëg ci biti ndax amoon nag njaboot boo xam ne nangu nañoo liggéey te yéene nañ ko wërsëgam amoon na ay xarit ak i soppe yoo xamante ne ni daan nañ ko jox loo xam ne sax duñ ko jox seeni i waaye lenn loo xamante ne ni mos nañ ko jox mu dencal ko ëllëg awul demon na ba amut compte banque koko wax sax da koy jaxal ñu bari maanaam milliardaire lañ ko doon wax waye demoon na ba amut compte banque ndax neena bank banque du liggey samedi dimanche te soxla xebut samedi dimanche moy nit day ñew fi mom dis ko soxla lamb jox ko rek la xam demoon na ba bu amut xaalis danaka du ubbi sa yo gisee mu yomb rek xamal ni pos yi dara ngi ci waye bu jafé rek xamal ni yorut ñu jox nit loolu itam bokku nañ am na benn commerçant bu ñuy wax Ousseynou Diaw nee na mos naa ko fekk Maroc fekk moom sax da doon jëndi bagage bi mu jëndee bagage ba pare ñu ni ko sañ Mbàkke yi mais ma laajte hôtel bu mu nekk ñu wax ma ko ma dem seeti mais bi ma gisee daf ma ni waaw kay gaawal ñëw xaalis bu bari bi ma yotti gisuma ku ma ko jox mooy metti sama bopp ci ab commerçant boo xam ne daa jënd si woon bagage nee na mu ma joxee ba pare dama door a mel ni kuy tàmbali jënd loolu lu kiimaane la xaalis daal taxut woon ci xolam waaye moom daal jàpp ne woon na ni war naa liggéeyal sëñ Tuubaa ci bindee bi loolu mu doon liggéey nag liggéey la boo xamante ni nii des na fi ba léegi lam amee ci liggéey ba nag yóbbaale na ko waaye jumtukaay yi mu doon liggéey mu ngi mu bàyyi ci ay loxo kon dafa mel ni yoon woowu wi mu jaar mënees na caa jaar waaye nag yoon wu jafe-jafe la muy yoon wu jox te noonu mu mel ci sayir noonu la ko suñ boroom joxe woon cërub biir waaye cërub biir ba nëbbee woon na ko sayiram mooy col gi muy solo boo ko gisee da ngay jàpp ni nit ku bëgg àdduna la boo koy dégg da ngay defe ni ku naqaree gis la soo ko jubee da ngay defe ni kii kenn mënta wax ak moom ndax dimension bu kawe bi mu nekk waaye soo agsee ci moom dana wàcce boppam ba koo xamoon danga ko fàtte da wax ni kii yeex naa koo xam ndax tedd ngay jug te loolu la doon ci sëñ Cheikh mi waajuram loolu la doon ci sëñ Moussa loolu la doon ci sëñ Touba sëñ Touba mbaax rek la am te loolu njaboot gi dañ ko war a xam war koo incarné waratuñoo toog ci barab naan sëñ Touba nii la mel nii la mel nii la mel sëñ Touba dañ war a ci suñu jëmm sëñ Touba dañ koo war a wane ci suñu jëflante ak nit ñi waaye da nga gis koo xam ne mën na laa waxal sëñ Tuubaa théorie la ci sëñ ba nga daanu waaye soo dugganteek moom du ngeen dox ñaari weer mukk te wàccoo ko dana la woor ci biir yi wax wala mu wor la ci jëf mbaa mu def la loo xamante ne nii rus ngaa taxaw di ko nettali moom nag fa tabaarakallaa suñ boroom musal na ko ci loolu moo doon tënk ci ak dundam rek dafay wax ni nit la koo xamante ne nii dund na fi dund ku barkeel goo xamante ni mat nay fàttali ndaw ñi dafay rek bu doon piisu perkaal lañ ko lëmase xuus naag moom ci géejug deret ba jàll te dara tisu ndax awut lenn loo xamante ne ni jamono mën na caa teg baaraam ni ba mu waxee nangam wala ba mu defee nangam ak nangam wala diggam ak diw nangam ak nangam diggam ak ay baayam rafet na diggam ak ay rakkam rafet na diggam ak ay maamam rafet na diggam ak ay taalibeem lépp kenn ku ci nekk mën na caa fanaanee waxu bët set te du jeex loolu nag fa tabaarakallaa mooy dund gu barkeel yal na suñu borom fayal njaboot gi mu bàyyi itam yal na suñu borom teg loxo barakati Cheikhul Khadim wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.